gaaf ak waruwaay waruwaay bu ma ko waxee oto dugg na ci weelo dugg na ci yow mi livreur di jënd jakarta dugg na ci yow mi nga xam ne nga yor sa palaas jënd scooter pour di bëgg a xëye ngir mu gaaw dugg na ci kon gaaf mi ngi ci waruwaay yépp yow mi nga xam ne dangay jënd ay oto di ko luye wala nga yor euh, parking dugg na ci kon gaaf am na ci foofa yow mi nga xam ne it dangay jënd kër moo xam agence immobilière yor wala xeet yu demee ko wala nga jënd ay kër di jaayaat wala nga bëgg a jënd kër boo dëkk wala nga bëgg a jëndal sa yaay kër wala nga bëgg a jëndal sa famille kër yooyu yëpp bokk na ci kër yi kër day am gaaf yow ya, bi nga xam ne da ngay dangaa toll ci sëy di jigéen bëgg am boroom kër góor dafay am gaaf comme ni ko di amee gaaf nag ñu bàyyi xel ñaar la suumul xayri ak suumu charri moo am mooy gaafu yiw gaaf gu baax ak gaaf gu bon moo am léeg gis jigen ñu ne jigen gi de ki de gaaf gi baxna na nga jënd aw fas ñu ne fas yu gaaf gi baxna na nga jëndum xaar ñu ne xaar mi gaaf gi baxna na nga jënd suuf ñu ne suuf ci gaaf gi baxna na yooyu yëpp lu ci nek lepp lu ma leer la bi sallallahu alayhi wa sallam te bi kat wa ma yantiqu anil hawa du waxe bànneexu bakkanam ndax in huwa illa wahyun yuha nee man luma wax ci digal la ko waxe motax mu ne ida kana suumu bu fekke gaaf amna fa fi sarasati ci ñett la fil mar'ati dana am ci jigen wal bayti ak keur wad dabati ak warway legi nak ñu am leral yu ñu leral tuuti ci walu mbiru listixaara ak walu mbiru set importance bi mu am ci dundu doomu adam bari na ko am ay jafe-jafe te liko ko tek moy duggu ci mbir ak fit wala duggu ci mbir ak da ndax yonent bi alaihi wasallam ñu jangal nañu ala ajalatu yakamti mina shaitani shaitani rek lay andal waaye watta an nii teey minallahi ca yàlla rek lay jóge mbir yi ñuy dugg ci àddina projet yi ñuy tënk ci àddina moo xam projet mariage la moo xam projet voyage la bu mu ci man da doon dafa am ay danger yu nekk ci yoo loola wala entreprise bi nga bëgg a def ci barab sàngam wala suuf sàngam nga ko bëgg a def wala dëkk sàngam dafa am lu ci lëndëm ci ay gaaf ak ay musiba yoo xam ne yow miy dugg ca mbir ma doo ko xam baro yonent bi sallallahu alayhi salaam mi nga xamne dafa yene won xetam bi aw yiw mu bàyyi len fi ñuy istikhara seen mbir ba lañu cedul moo tax jaabir na yonent bi da nañu jàngal li istikhara diko jox importance comme nim doon joxe importance bu ñu jàngal aw saar ci alquran waye yemut ci jàngale ka danañu idha hëmma ahadukum bi amrin kenn ci yéen bu amé mbir mu mu bëgg dugg mbir mu mën doon nak bi sifa sa bi sifa fa amma na ci def li istikhara mu déhalanté ak boromam ndax kat alxuraan dañu wax ne asa an tuhibbu shay'an wa huwa lakum léegi dee ngay bëgg jongama fekk boo ci duggee dee wa asa an takrahu shay'an wa huwa xayrun lakum léeg-léeg ngay bañ nit jongama te ngay bañ jigéen joo xam da nga ko bëgg a takk fekk xëy na ñaawaay baa tax fekk boo ci duggee mën ngaa nekk milliardaire yàlla ne wallaahu yàlla moom xam na lépp waa antum te yéen nag laa la mën a xamu ngeen tus kon nag yow mi xamul dara nag booy def da laaj ci xam ndax kat suñu borom moom xam ne lépp te peeg na lépp ndax alim la xam na lépp ku xakim la ku xereñ la kon nag boo ko laajee dana la teg ci yoon maro yonent bi saa sallam daañu sant ñu istixaara doomu aadama bi léeg-léeg na toll foo xamante ne ay mbiram day bloqué wu ci wàllu làmmiñ bloqué ko wala wàllu cat bloqué ko ndax cat ak làmmiñ lu sax la ci sariatul islaam يندب صلى الله عليه وسلم دفعه أن أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره من العين لأب تلي فات كسما خير بيتشات أقلام مولين غار مولين دل لكن أكثر أقلام نون ميراي نت نون لا يتجي بنتو وسق دوم آدم لكن نت تك أي مبكم تيبون يديو تكنا من أعد مل نت فريو مت وسق دوم دب دفعك دارا دوم دارا léeg léeg nit tukki commencé di liggéey ba mu yàgg mu commencé tabax kër keroog ba mu fondement kër ga bañ sëkk ko la ci mujj def dara ndax làmmiñ kar na ko kon yooyu yëpp bala nga ciy dugg na nga dugg ba xam sarax bi ngay def am na sarax yoo xam ne booy tàmbalee dara def ko làmmiñ mënu ko taxawal làmmiñ mënu ko gàllankoor am na yoon yoo xam ne boo koy doxi am na sarax yoo xam ne boo ko defee làmmiñ mënul gàllankoor sa yoon mënul téye sa wërsëg jigéen sax da ko takk mu rafet loolu ca topp la ca ba doo ci mën a am njaboot wala doo ngeen mën a am jàmm fu ngeen toll da ngeen di coow kon yooyu yëpp ay mbiri gaaf la xam ne dafa am ci biir mbir léeg-léeg nga jënd oto boo xam ne da koy jënd oto bi daanaka da nga ko jënd rek mu commencé paan da nga ci def loo xam ne mën nga ci jënd ñaari oto chaque jour nga dépanne ko yóbbu sa bi di ay accident ak yu demee naka noonu léeg-léeg nga takk jigéen joo xam ne da nga koo takk rek say biir commencé rës di daanu ngay commencé ami naqar di ami bor dégg nga loo dugg du sotti nga dàq la sa liggéeykaay xëy yooyu yëpp ay mbir yu ñàkk ànd da koy waral boo deeyaa leen doon suñu borom dana la tànnal li gën léeg-léeg nga dëkk ci kër comme ni ma ko waxee sànq ci vidéo bale sa fit dootul toog sa njaboot jaxasoo coowoo am dootoo nekk ci jàmm dootoo nelaw nelaw yi tranquille sa njaboot di tiit sa kër am na kër yoo xam ne sax day dem bay lakk di tàkk am na kër yoo xam ne da fay dugg rek sa kër tas waaw man gis naa ñoo xam ne kër yi ñu tuxu bañ keroog bañ fa tuxoo la waa kër gépp dee daa nekk la fay des tuuti la yoon loolu yéen nag suñu borom moo leen rey waaye nag mbir yi nag da ngay moytandiku ndax comme mbir yi am na ay danger te suñu borom nee ne wala tulku bi aydikum ila tahlukati lépp loo xam ne danger nga ca te ngeen xam ko bu leen ca dugg wala bala ngaa dugg ci mbir na nga listixaara listixaara nag boobu junjoon naa sànq ci vidéo bene ne sens bi ci am mooy ñaar la suñu boroom dana la tànn li gën ci yow dana la ko yombalal dana la may loo ci def bu dee lu gën ci yow dana la ko dàqal indil la li gën ci yow ndax yaa ne ko in kaana xayran lii fii diini lii yàlla lii may bëgg a dugg bu dee gën ci man oto bi bëgg a bu dee baax na soxna si may bëgg tak bu dé baxna kër gi may bëgg jënd bu dé baxna na faqdurhu wa yassirhu summa barik li fi nang mako yombalal ya nang mako sotalal nang ma ko barkeelal nga bu baax ne ko nak it kana sarran li fi dini wa maasi wa aqibati amri bu dé lu bon la ci man nak nang mako dakal ci àll ba nanga ko génne ci sama xel motax lepp loy dugg boo li sixaare bu gënul ci yow yalla koy génne sa xel dala ci décoration wa li ci neex waqdur haythu kana ñaari booy jënd kër kër gi baaxul boo defee li saxaar suñu borom dana fexe ba kër ga njënd ma du sotti waaye dina la indil kër gi gën ci yow bu dee jigéen la ngoro ga dana tas mu indi la jigéen yi gën ci yow bu dee yow ku jigéen ki góor la boo defee li saxaar yàlla na la dàppal ko góor googu indi la koo xam ne tubaarkàlla mën na koo gën a jantal ëpp ko xaalis gën koo baax bu dee ci warwaay la noonu xëlu mu jarra ba keroog muy jeex kon mbir mooy duggu lekk rek def ca li saxaara mais yàlla doomu aadama léeg-léeg mu mbiram di dox ba yàgg mu jékki-jékki yaramam naqari yaramam diis dootu mën a nelaw ay mbiram fekk problème mu biddiw la am dégg nga bu baax waaw ah, problème biddiw la ndax mag ñi dañ doon tegtaloo ci biddiw wa alaamaatin wa bin najmi hum yahtaduun dañ naan tegtaloo ci waru xam-xamu biddiw xam-xamu biddiw nag dafa am sew bu ci nekk moo tax gisee yonent bi saa salaam daanañu ko moytandikuloo ne xam-xamu biddiw bu leen ci xuus ndax boo ci xuusee day dem ba mën na laa dugal ci shirk wala mën na dem ba nga jàpp ne sax yow da am yàlla daf laa may pouvoir bu dëgër léeg-léeg daf may dal léeg-léeg ma xoolal nit dara ci wàllu mbiru ilmul xuruf wax ko lu dara mune ma ah sëñ bi li dem doy na war ah yow sëñ bi ma la dangal nangal legui nak yoyu nak yu sew sewaan yoy ngay découvrir ci walu xam xam-xamu huruf bo gaawee gis sa bop rek saytaan da ci jaar ba dëgg duggal la ci ndëgg sarax waaye nag ñoo doomu adama xam-xam lo ci sori sori rek tay am fo xane bo fa agge nga yem ci lola motax bo tollo ci jamono xat-xat yoyu ci walu xam xam xuruuf am na fooy jaare ñi jàng zaire yu yi hande handasiya ak yenen téré yo xamanteni yu aju ci walu xam xam-xam na ngir xam am téré bu ñuy tuddé al lu'lu wal marjan fi ma'rifati tali'il insan téere bu jafé am la waye téere bu boko amé lepp lo xamanteni bëgg ko xam ci dooma aadama kéro nga xamé bis bu mu juddoo xam turu ndeyam turu bayam man nga ko wax lo ko tracé viom fi mi jaar fépp dara du ci dañ sarax bi nga xamné mom la wara a génne ko xam aaju bi mu dugg bu lako waxé bo xamé dat bi mu ci wara dugg wala même bu doon lu weesu la sax bu doon dañ ko won tribunal war ko atté sax wala dañu nangu war ay dem ci tukki sax war ko wat wala lu man def ñu war ko àtte boo xamee date bi ñu ko war àttee mën na xam lan la war def ba mën ci génn wala suñu war génn ko ci xat-xat yooyu kon nit ki ci at mi dox dafa am ay weer yu ci aju muy fukki weer ak ñaar inna iddata suhur inda la inda inna eh, ñu ko waxee isna inda mooy ki isna asra sahran fukki weer la ak ñaar dégg nga baax fukki weer ak ñaar yooyu nag dafa bëri ay dëxan yu ci am mooy baatu li jaaba la boo tax lépp loo xamante ni mi ngi ciy xew rek suñu borom daf ko tranché am na ci yoo xam ne dañ ويا يا حمد كيور أمي يا خنا أسهر الحرم لا أمي ويا يا خنا مانجي بنتي أجدنا دوير بي ku ci a bañ a dagg garab moo gën dañaan la weer yu ku ci a bañ a takk soxna moo gën leerul dañaan la ci mën a a na bis la boo ci mën a bañ a tàmbali dara moo gën am kenn du ci jihaad kenn du ci xeex kenn du ci def dara am na weer yoo xam ne boo ci yokkee sa jaamu yàlla jaamu yàlla boo ci def suñu borom daf koy multiplier gën koo yokk mu gën mu gën ëpp weer yi nga xam ne moo weesu woon te weer yépp weer la parce que yi 30 jours la yi nekk 31 jours kon nag deel bàyyi xel loolu bu baax a baax moo tax lépp looy dugg na fexe ba xam ca la dël ci yow beneen bi kon doomu bu demee ba yëg yenn jafe-jafe ci yaramam mbiram doon dox ba doxatul yaramam doon neex ba neexatul xolam doon neex ba neexatul fitam doon toog fit bi toogatul mu dem ba nga xamante ne daal am na lu mu yëg ne lii bokkatul sama yaram na dem mu xooli ay mbiram bu amee sarax mu war koo def bu amee lu mu war a sangoo ci alquran mu dem def ko am naa danaa ci mosalaale benn aaya boo xam ne mi ngi ci alquran képp koo xam ne danga dem ba mu yàgg nga yëg jafe-jafe ci sa wàllu yaram boo ko mënee bindulu nga bindulu ko junni yoon mooy urkut bi rijlika hada muxtasalun baaridun wa sharaab urkut bi rijlika hada muxtasalun baaridun wa sharaab boo ko wutee moom moom nga xam moo di aay boobu nga bindulu ko def ko saafara teg ko nee wala ngay wut junni xobu guy ak junni xobu siddéem dang koy wagn nak ay bi junni ngokoy bind junni xobu guy junni xobu siddéem nga jël ko def ko ci ben siwoo daal di ko ci tëj xam ko ci baye ko ci ba nga xamanteni ni ci si commencé naa yàbbi nga jël ko sango ko fukki fan ak ñaar lii lu bax la ci ñi nga xamanteni seen seeni dafa dox ba yag mu lendeum boko defé rek automatiquement nga commencé gis lèr guy commencé am ci seen mbir bop lolou dama ko ci di gars dama ko ci yokal tuddu may leen ko ci naka no doom aadama bu genté ci walu chiffre bu yewoo mën naa xool bu xamee weer yu nekk ci euh, ci atum julit gént gi lan la signifie bu dee doomu aadama bi dañ ko proposé ñaari liggéey fii woo nañ ko fii woo nañ ko dafa déposé woon ñaari CV mu bëgg a xam ñaari liggéey ban moo ci gën yooyu mën naa nekk ñaari soxna da ngay ñaar ñu laa sa kër nijaay da ab jànq nga fa waaye sa kër nijaay moor tamit ab jànq nga fa nga xool ñaari jànq yëpp ñu baax waaye nag xamu ko kan nga war a tànn te mën nga def listixaar nga xool mën nga def naafil listixaar mën nga jaar ci borom xam-xam bu xam ilmu ramli wala ilmu taaliq li mu wax la ne la kii kat moo gën kii mooy soxna si baax ndax bu leen fàtt ni ab sëy man naa baax man naa ànd wërsëg mën na caa am njaboot man na caa am mais nekkul sëy buy am continuité ñu bëri xamuñu loolu loolu lañ ko bàyyi xel baax kon wàllu sëy boo ci duggee da nga koy xool ba ci kasaas wàllu sàcc defe naa loolu ñu bëri ñi may seetaan ci tiktok yeeg yooyu xam nañ ko ki ma ci mujj ak yéen benn sëñ daara bu nekkoon bu nekk Kër Massar xam na li may yoo xam naa bu lii dee vidéo bi dina dina ko gis xale bu réeree léegi boo xamee dat bi mu réer turam ak turu yaayam mën nga xam ne xale bi mi mi ngi dund wala dundul dee wala deewul mi ngi ci biir ndox wala mi ngi ci kaw suuf wala fii ak nangami fan xale bi mën naa ñëwaat ak sarax bi koy indiwaat loolu defe naa ne feeñal naa ci ay nit ba taay woon mën naa la defal lii rek nga dem def ko waaye doomu aadama dañoo goree di ba nga xam ne bu xale bi feeñu duñ la boowaat dégg nga keroog ndaw si bi xale bi feeñee mu bàyyaat ba mu ñetti fan mu woo ma naan ma xaw ma sama doom dafa feebar ma ne ko ah ma ne ko ah xale bi na ko ma ne ko lu tax wóotee mu ne sama doom ji feebar ma ne ko yow jërul sonn ma dara mënuma mënaatuma ko ci yow mu ba jox ma doom beneen doom ji téléphone na sama yaay sama rakk bi loo leen baax a baax kon buñ la sàccee tamit mën ngaa fexe ba découvrir sàcc gi fan la nekk euh, dégg nga bu dee dafa am mbir mooy dugg moo xam tukki la moo xam mbir moo yootu la nga di ci nab na bi di ci sonn nga bëgg xam mbir mi ndax jar na sonn dana sotti wala du sotti loolu lu mën a nekk la wàllu entreprise bi nga bëgg ubbi wala nga bëgg dugg ci wàllu commerce nga bëgg xam commerce bi moo gën ci yow wala loolu yëpp lu mën a nekk la ñaari réew kii dafa nekk France bëgg a dem Belgique wala mu nekk Suisse bëgg a dem Argentine mu bëgg a xam ñaari réew yi ban moo ci gën a tëbb dëppoo taali am nekk ci am réew fukki at du am benn at lam doon wut ci fukki at ko ci foofu kon loolu bàyyi xel yu bare diggante boo xam ne dafa yàqu tamit léeg-léeg ñaari nit di sëy ba mu yàgg ñu ne nii dem ba mu yàgg ñu bëgg a xam ndax am ñeneen ñu ñëwaat pour ñaan si la te moom kee la gën a bëgg te kee am na fa njaboot mu bëgg a xam ndax diggante bi jeex na wala ndax dëppoo dina amal ndax ànd ndax ay nit mën nañ divorcer fukki at fekk seen sëy jeexul ci baatin mais saahir ko yàq saahir nag mooy xëy ni jaaya mero wala kilifa ya am problème ciow way ya, dara yalla man na def ba ñëw yoon yaq sey ba ñep dee ba jeex ya, ñaar ñu sëyaat léeg-léeg nak loolu nak boko xolé nak budé sey bo xamné jeexagul la sarax man nako ko débloqué leneen ak leneen ci ay pexé ci wàllu alcorane man na ko débloqué ba nit ki mëna a ci loola budé walu mbiru walu mbiru tribunal la man ko wax sank nit ki mëna xam ndax atté bi mu jël ndax dana ci am ndam wala ci am ndam ak xeet yi demee na ko noonu li nga xamante tamit moy walu xat-xat la nit ki nga dafa nekk ci jafé jafé bu yàgg mu diko ko dund di ko dund di ko dund di ko dund te xamul lii lu ne def na ko sangoon a saafara dem na ci fu ne jaar boo xamee wàllu ilmul xuruuf man nga xam nit ki xat yi kañ ciy génn lan moo ci lan moo lan moo ko lan naka la ci génn ak bu ci génn lan moo cee topp kon yooyu yëpp ay bunt la yoo xam ne doomu aadama yi mën na ko xam jaare ko ci ay bunt xam-xam yu leer ci lépp ci xam-xamu alquran lay jaare kon yàlla na yàlla sunu borom subhanahu wa taala defal ñu dégg ak topp in uridu illa al islam asalaatu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh